ziyaare sëñ Muntaxa xalifa sëriñ Touba yàlla may ko wér maa ngi dalal jàmm tey fii ci Touba euh, monsieur le ministre du commerce ak directeur général sonakos ak gouverneur préfet euh, sous-préfet ak monsieur le maire de la ville di am mbégte bu baax tey ci visite bii monsieur le ministre di visite bu am solo ñun dañu am kontaante ci partenariat bi nga xam ne moo dox diggante Rasiaat ak Sonacos ndax euh, partenariat boobu dafa jóge ci xalaatu président de la république monsieur Macky Sall bi mu ko xalaatee mu teg ko ci loxo premier ministre premier ministre jël dossier bi tegaat ko ci sa loxo ministère du commerce nga pilote dossier bi pilotement bu rafet ndax comme ni nga ko waxee sànq rek euh, projet bi plateforme bi euh, ci début bi am na ñoo nga xamante ne gëmuñ ko woon mais yow da nga da nga patriote da nga bëgg sa réew bëgg googu nga bëgg sa réew ak xam gi nga xam ne chaîne de valeur bii bu nu ko valoriser mën na indi développement ak koom-koom bu am njariñ ci biir réew mi moo tax danga ko mës a gëm taxaw ci taxawaay bu rafet ci diggante Rasiaat ak Sonacos diggante Sonacos ak commerçant yi ndax monsieur le ministre euh, président de la république xam na ne gerte comme ni ñu ko waxee plus de 4 millions sénégalais ñoo ciy dund ci ñu koy bay ak ñi nga xam ne ñoo koy transformer donc lolu bu amé ci réew ñuy euh, ñuy importer lu mat 200 milliards d'huile par an gerté gi ñor ren am plus de 1 million 400 de tonnes yu ñor bir Sénégal wax deug yalla xalaat bu rafet bi buñ ko amé xamnañ né li moy sukkali gi réew moy jëmele kanam réew ndax tay plateforme bi comme niñ koy faral di waxé rek bis bu huilé bor day jeex ci mbay mi ndax su féké baykat yi su bayé euh euh, euh ñi nga xamné ñoy nal diw gi jënd gerté gi téw bu nu ko nalee jaayi ko industriel yi lu mel ne Sonacos ñoom ñu rafine ko bu nu ko raffiné nga taxawal commerçant yi ñu jënd ko lañ daan def dem Malaisie lañ daan dem Inde di ko jënd ci ay industriel indonésien ñu jëndee ko ci industriel sénégalais yi donc loolu bu amee chaîne valeur bi bis bu huilee bor day jeex ci mbay mi Sénégal développé réew mi jëm ca kanam parce que su boobaa liggéey day am parce que ñun artisan yi nga xam ne ñun ñooy naru dëwlin ñun fi mu ne actuellement à Touba ñu ngi fi employé 12000 emplois 5 mois lañ daan liggéey ci année bi taxaw tay grâce à partenariat Raziat Sonacos taxna na dinañ mën liggéey 1 an té gëm nañ nekk plateforme bi luy dem la parce que ku nek dina gis njariñ li nga xamné ci kom kom mom la jural Touba mais mom la jural réew mi parce que plateforme bi dañu bëgg bu déwé né ñu yaatal ko ba mu dugg ci biir réew mi yëpp lu mel ne Kaolack gis ci seen lu ko gis ci seen bop jurbel gis ci seen bop donc lolu bu amé réew mi day daal di développé tey nag defe naa ne képp ko nga xamante ne sénégalais la vraiment patriote nga bëgg nga réew mi war nga saluer euh, xalaatu président de la république bi monsieur Macky Sall parce que lii mooy suqali réew réew industrie est koy mais réew bu fekkee ne secteur industriel am bi dafa xaw a faible wala bari ay emploi réew mi day daal di commencé naxas réew du basé wu ci commerce réew day basé wu ci industrie ñu ñuy profité nag di sant sunu mbokk commerçant yi mooy waa Inacwa ñoom ñi nga xam ne signé nañ ci plateforme bi te à chaque fois bu ñu wootee rek ñoom dañuy wax ne que dañu ànd ci plateforme bi pare nañ pour lépp lu Sonacos raffiné ñu jënd ko pour mettre ko sur le marché local donc daal monsieur le ministre ñoo ngi lay sant encore une fois di la ñaanal euh, liggéey bi nga tàmbali nga eggale ko si jàmm ñu dem ba nga xam ndax réew mi yëpp xam nañ ne lii mooy développé réew mi